ginnaaw démb bu ñu déggee kàddu ya nga xam ne ah, bu jógee si Gaston Mbengue naan kii di Barthélémy Dias du sénégalais dañ taal këram yow noo jàngatee kàddu yooyu noonu en tant que sénégalais. waaw en tant que sénégalais moom jàpp ni Père Gaston dafa xaw a juum rek démb dafa juum ndax am na loo xamante ne du waxu kilifa te moom nekkatul koo xamante ne ku ndaw la ci Sénégal am na loo xam ne moom da ko war dañ ko waroon dégg ci keneen ci làmmiñam ñu ne ah liikat keneen na ko wax ak lii mais kilifa gu mel ni Gaston moom warul jég di wax wax yu rëy yooyu Sénégal ak fi réew mi toll ni instant yi. waxuma la sénégalais sax mais amul doomu aadama bu koy rafetlu quoi. parce que lool di yëfu doomu aadama ñun bon nu nu baaxoo mel si nu réew ak ñu nuy dégg aussi duñu roy ñoom xamuñu loolu sax quoi bu fekkente ne idéal boobu noonu moom ma ko wax vraiment mais vaut mu dellu ginnaaw reculer wu jégalu aussi devant tout le monde. parce que ñun dëgg la ne xam et puis yërmande danoo yaatu ba boole añ ñëpp koy bokk quoi. dafa am lu nga xamante ne ñoom ñoo war a woote jàmm xool li indi jàmm ñi di ko wax mais loolu bu ko nit ñu déggee rafet loolu rafetul waaw Barthélémy Dias nag loolu muy wax si Barthélémy Dias ñu taal këram loolu waru ko wax. waaw am na ñu nga xam ne seen xel gàtt na ba mën nañ tax mën nañ dem sax def loolu te koy commencé sentir gaa dëgg la mais réew mi moom. violence xëy na wax mën nay am nii rek te Barth tamit man faruma ak moom mais xëy na li muy wax di ko waxee ku ko ci jugé da ngay juum Barthélemy daraay daray daray violence nekkul ci moom. waaw man du du ànduma ak moom du maire yi Dakar fii laay voté wala xam nga mais nekkul li muy wax du Barth tool taal Sénégal taxu koo jóg leneen lu taal Sénégal taxu koo jóg. Barthélemy nag sénégalais di sénégalais sénégalais ñoo ko bëggal seen bopp choisiral ko seen bopp parce que lu muy def neex na sénégalais yi en tant que citoyen garçon Mbengue peut-être mun nanoo juger na moom combat la a xam te si yooyu la war a sax dugg di si wax parce que yi boobu ma ko waxee tuuti naa si di ko wax mais kilifa yi danoo war a mun a génn wax ak moom lu muy dégg moom dafa war a mun a génn dafa tout le monde jégalu parce que loolu mooy dëgg quoi. loolu moom loolu affaire xeet yooyu noonu loolu mun na fi indi problème loolu mën a fee indi problème parce que lu wax moom c'est que Gaston lu wax moo rafetul mais mooy lu ma lay wax léegi am na ñoo xam ne dañuy gàtt xel ba nga xamante ne mën nañ def loolu mën nañ def loolu mais Gaston en tant que Gaston moom nit dañuy roy ci moom dañuy roy ci moom am na yu nga xamante ne da koo war a def muy rafet Sénégalais yi du ko gis di kontaan mais am na yenn wax yu nga xam ne a ko waxtu du rôle am dural duralam loolu waru ko wax. non no non du si Moussa am du si Moussa am après li ñuy waxtaanee la rek quelque temps bu mu jeex mais lii dañ ko war a mën a freiner ba keneen kiy jóg du lu mel nii dootu ko mën a waxati quoi ba fekkonte ne daan yi war si moom def nañ ko kon keneen di jóg du wax lu mel nii mais dinañ ko bàyyi nii mu sedd keneen dina jóg lu wax waxaat lu mel nii ñu bàyyi ko mu sedd parce que Sénégal dafa baaxoo ma sax mais du mujj fenn da yegg fenn loolu moom na sa xel dal si côté boobu ñun duñu mu sam problème problème boobu noonu non non duñ ko mu sam duñ ko mu sam du mu sam Sénégal du si mu sam parce que tu sais pourquoi parce que danoo am ay kilifa yoo xam ne nii bu ñu waxee dañ leen di déggal ñun loolu suñu sens si Sénégal quoi te bëri na ay réew yu bëgg tey jii bu ne sañoon ñoom ñu am seen dëkk ngi tàq fi mu nekk nii te yooyu moo leen di taal ko mais quant à fii nag ñun dana am ay kilifa yoo xam ne bu ñu wax ak ñun rek ñun da leen di dégg quoi sens boobu la Sénégal am. yàlla nañ borom dimbale rek dëkk bi am jàmm mais jàmm jooju ñoom it ñoom it ñoom ñoo war a xool lu nga xamante ne lii day indi violence ñu ñu ñu ñu di ko moytu ñoo war a xool lu nga xam lii day day indi violence ñu moytu ko waaw. loolu laa gis ñoom ñi nga xam ñoom ñooy kilifa yi ñoom ay kilifa lañ te nit ñi dañuy topp seen ginnaaw ñu ànd ak mbooloo. xam nga dafa am yu nga xam ñoom ñoo ko war di moytu. yaakaar euh, euh, waaw man. Mhm. jox sama xalaatu bopp sama xalaatu bopp man man man de sama xalaatu bopp man su may conseillé dafa am yu nga xamante ne nit ki yow nit ki yow yaa ka war a mën a may sa bopp. ndax ñoom ñii tey ji ak problème mun munti am ci affaire yooyu yaa ko gérer ñoom après ñoom seen yoon di si nekk kon yow mi nga xamante ne yow yaa yow yow yow yaa war a gérer sa bopp xam bu baax fooy teg sa tànk te aussi ñoom soo leen toppee ñoom bu ñu seen problème bu jeexee rek jeex na kon yow mi nga xam ne yaa topp seen yaa war a xam loo bëgg affaire violence yooyu bu naree am nga nar see gis ne yow boo ko defee dina métti ci nga bàyyi nga dégagé wu bàyyi leen ak seen seen i kii quoi